waaw li waral suñu ndaje bii nag tey mooy comme ni ko suñu doyen laay waxee dañu xëy am ay privé yoo xamante dañu ñëw ne dañ leen jox espace bi ay nit ñoo leen ko jaay te lii bokk ci moomeelu Bambilor ndax décret présidentiel moom moo wundu place bi mu bokk ci titre foncier bu ñuy wax 48 68 R. ñun li ñu tax a jóg tey mooy xeex li nga xamante ne mooy moomeelu Bambilor muy place bii. duñu nangu kenn di ko jël duñu xaar ku fi bëgg a ñëw pour jël ko di nga fi fekk jeunesse su Bambilor beneen bi ultimatum la ñuy jox ñi nga xamante ne mooy autorité yi ndax tey am na manifestation bu mag bu ñu def baare nañ tali bi presque quatre heures de temps ultimatum lañ leen di may soixante douze heures bu ñu amul benn réaction dañuy wàccaat sur le terrain yëngal beneen bi si topp mooy Bambilor dafa am projet bo xamantene mairie bi daf ko fi indi muy stade stade bobu ma bëgg léral opinion nationale ak internationale que Bambilor moo mom stade bi ndax délibération bi nga xamantene ni mom mo moo lolu, man mi di président man mako yor c'est au nom du foyer des jeunes et de la culture de Bambilor. ñu né nak bala ngay jox ñenti nit alalu dëkkub lëmm ñun duñ ko nangu. looloo waral ñu daje woon fi tey pour assemblée générale d'information ñu wax ne duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg lu mu jaral ñépp jaral nañu ndax ñoo ko moom li ñu moom duñ ko xëccoo lii nag alerte dong la dañ doon wone ne suñu yëf ñoo ko moom suñu yëf yooyu ñu moom la képp ku bëgg a ñëw ko di nga fi fekk Bambilor yépp ndax tey yàlla dimbali ñu ba Bambilor yëpp joxante loxo